ñun euh, on n'a pas déployé euh, ces moyens quand on était au pouvoir bien avant d'être au pouvoir. quand on était quand on était quand on était quand on était ay quatre ay quatre quatre la yoroon avec son effigie avec ses quand on avait les moyens de le faire on l'a fait. les autres maintenant donc ñoom euh, quand on parle de l'argent sale de c'est mais vous êtes des journalistes allez vérifier allez vérifier si c'est faux faut pas que les gens ñuy banaliser ces informations là mhm. balaa ñoo xam ne dañ koy tooñ am tooñ ñu ko dama bëgg ñu def investigation man damay fi ma doon invité c'est de graves accusations ñu def waa nañ nañ léegi nag c'est nu loolu la ñi lay accuser accusé nañu c'est des journalistes même ah comme vous vous y croyez vous vous accordez crédit donc yéen a dem leen nag ngeen def seen investigation boo tax wala ngeen leeral askan wi donc mooy seen métier ngeen da leeral askan wi mhm. bu leen jàpp ne rek ne voilà ay opposant la moo tax ñu tere leen mbaa ñu accuser leen loolu day yomb parce que pour Benno Bokk Yaakaar bon président Sall lay wax moo jiitu Benno Bokk Yaakaar mhm. avant muy falu on parlait de l'argent reçu de Omar Bongo on parlait aussi d'un bienfaiteur non waxuma ñun. non xam nga le pouvoir libéral bi fi nekkoon laa bu ko gëstu woon xëy na kon même coow bi lay lay lay lay. kan moo doon def accusation bi est-ce que du pouvoir libéral bi moo doon def accusation boobu. waaw comme ni ngeen koy defee yéen tey rek non ñu def <laughs> est-ce que nga Macky mbaa parti politique mbaa un des vôtres le député bi nekkoon euh, assemblée. Matar xaw ma nan. voilà il a fait mhm. à titre individuel en tant que député. ça n'engage que lui. ah il a donné ses informations en tant que député et mhm. ko. du gars ñu ngi wax mais kenn plainte ko de. Mhm. moom il est prêt et on l'a invité dans une émission je ne sais pas si c'est à ce votre émission ou pas. Mhm. où il a dit que il maintient tout ce qu'il a dit. puisqu'il a les preuves de le faire. Mhm. donc ñi ñu accusé faut pas vous mettre faut pas que ngeen nekk à la personnes ngeen koy les accusés là n'ont qu'à venir se défendre. et uh-huh. montrer les preuves ou bien aller porter plainte.